serigne saliou non Touba yag yag day mujj ci loxoy fall yi motax tay ji serigne sëriñ mi jox na ndigal fall yi ci njitalu serigne Amdi khalifa Cheikh Rofal bi lepp luy wor may dekk bi du Touba fall koy saytu ciol gu bon tokh nan ba ci football yëngu mes diw musique ak lepp lu bon la yenn kurel ya yoroon jox na leen ko kon ku yabu teel a tere yi ndax fall yi amuñu caaxaan li serigne Touba bëgg Cheikh Ibra Fall dana ko def ku ko mën toog ku ko te dem jaaraama serigne Saliou non Touba yag yag day mujj ci loxoy Baye Fall yi moo tax tey jii sëriñ mi jox na ndigal Baye Fall yi si njiitalu sëriñ Amdi khalifa Cheikh rofal bi lepp luy war may dekk bi di Touba Baye Fall yee koy saytu ciol gu bon tokh nan ba ci football yengu mes diw musique ak lepp lu bon la yenn kurel ya yoroon jox na leen ko kon ku yabu teel baye tere yi ndax Baye Fall yi amuñu caaxaan li serigne Touba bëgg Cheikh Ibra Fall dana ko def ku ko mën toog ku ko mënul te teel dem Jarama Cheikh Ibrahima Fall